ma ne. Ah. yow déggoo kuy ñuy installer un directeur mu naan la euh, mënuñu gouverner réew mi parce que. non c'était pas à l'installation c'était euh, lors d'une rencontre à Kër Massar euh, plus tard. mais il était déjà installé après donc le directeur général la. waaw mu ne mënuñu gouverner qui dans leur engagement vis-à-vis de la population warul def politique ñoom ñoo ko waxoon. Hmm. ñoo newoon yenn postes yi duñu politique euh, bu ne. du wax ay wax yi xaw ma milliardaire machin nangam. ne mënuñu gouverner réew mi avec dix milliardaires errants. et pas avec vingt cinq pour cent à l' ñoo ñoo ñu sont majorité à l' assemblée léegi nga naan sénégalais ñun vingt cinq pour cent la ñu am assemblée yaa ngi woon majorité. donc loolu sa interpelle en tout cas l' opposition que nous sommes maanaam taxaw jot na ah oui oui taxaw jot na. bu dee hmm. parce que euh, mais li mu wax nii sonde la de walla annonce la. annonce la. annonce la xam ngeen fi mu jëm. mais <laughs> ñun nag duñu nous sommes pas des nains. ne sont pas des nains politiques. mais c'est comme c'est comme quand vous avez comme bi bi bi bi les membres de Benno Siggil Sénégal wër Macky ne la la reddition des comptes est une demande sociale. mënuloo gouverner ce pays là ma ne waaw benno mënoo gouverner ce pays là en ayant une opposition de <laughs> milliardaires il faut casser le PDS boo tëjul Karim Wade sénégalais yi duñ la falaat mais kan lañu casser waaw waaw euh, c'est la même chose ah personne maintenant ku ñu fay sa bor nga mer la nga leble moo baaxul non non man xam nga <laughs> mais fraternellement même ah. <laughs> euh, bi mu ñëwee ah. def na ko tuuti non dama ne def na. commencé na tuuti rek. j'étais directeur après Ablaye Wade a laissé j'étais directeur financier de la s CSE on a défilé à la DIC. ah bon. oui Wade bi mu ñëwee il a pris des cabinets des cabinets inségues yëpp pour auditer des trucs ils ont sorti des rapports j'ai un ami je cite pas son nom qui était à ENS bi mu waxee ma ne ko vous n'allez rien sortir parce que ce que vous dites là c'est des chimères euh, mais des rapports. mais on a reçu des convocations et ils ont convoqué mon patron ba ñu xool affaire bi je salue mon grand passage Malal Kane était directeur euh, d'exploitation chez nous mais allez voir le vieux en mais ñun ñaar ñoo mën a dem parce que yow lii mu ngi mel ne tey nga ko waxee ministre technicien il faut ñu toog ñun ñoo mën a dem parce que tout ce qui est financier administratif négociation de ces marchés c'est moi tout ce qui est technique exécution machin de ces marchés c'est lui ñun demoon tontu ji loolu. donc on l'a vécu dans la sphère privée on nous avait pris du foncier dans la sphère privée qu'ils ont été obligés après de nous payer parce que les gens duñu am les gens ne se laissent pas faire on est dans un état de droit mais xamul tax may li licité dama ne waat def na ko Macky def na ko c'est là où je dis c'est un mandat il avait sept ans Macky Sall son premier mandat il avait sept ans ñoom ils ont cinq ans mais alors s'ils font du bon boulot ils peuvent être moi je c'est-à-dire que c'est c'est ñeelee un an deux ans yu ñu perdoon ci affaire yooyu ils ont eu cinq ans pour se pour se voilà ok se remettre sur les besoins les trucs priorités importants pour les Sénégalais li tax Sénégalais yi fal la waxuma nag gis nga bu leen neexee nañu convoqué ku leen neex